surtout ñu bëri doon xaar muy rek ana kañ la ñuy tàmbale appliqué njëg yi nga xamante ni nii moom lañ daal di wàññi li di mel nag tey ministre bi daal di jël ndogal xam le ni dinañ ko door altine ji di ñëw fépp ci réew mi. mesures yëpp altine incha lay commencé prix yi fi wax yëpp à partir de lundi la wax les conseils régionaux incha allah nañ leen woo pour waxtaan wax ki également li nga xam ne mooy publicité bi ak affichage prix bi nañ ko wax. conseil national de la consommation tey ñu doon waxtaanee lépp lu jëm ci njëgu diwlin bi ceeb bi suukar bi mburu bi wala sax ciment bi wante tamit bokk na ci lu ministre bi daal di xamle dinañ fexe ba fépp ci Sénégal ñuy mën di contrôler ngir xool ba xam ñu ngi respecté njëg yu bees yi lé politique Sonac dañ ko gën a euh, ño kii pour fexe ay magasin sur l'ensemble du territoire pour que mën a distribuer les produits li nga xam ne aussi mooy réflexion dañ ko continuer ak yéen ñëpp pour gën a am am li yor li nga xam mooy discussion bi. fexe ba waxtaan ak acteurs yi ngànk mbir mi yëpp ngi rek contrôle bi mën a jaar yoon. contrôle depuis nañ ko également fexe ba ñëpp mun cee bokk muy bàjjenu gox yeeg mille volontaires yeeg ñëpp dañ ci nar a bokk pour mesure individuelle yi incha allah dañoo bëgg mu nekk souveraineté économique alimentaire dañ ko gën a encourager. li wër Sénégal bi yëpp. dinañu fexe ba installer ay magasin ngir rek lépp luy distribution ñu mën ko yombal sénégalais yi